Euh, bi ci des mooy Pape Bouba Diallo mi nga xam ne dañoo wax ne ab policier la ñu ne dañ ko raje ci police bi lan moo tax ñu raje ko ci police bi dafa monté woon garde mu bàyyi fa loola muy def mu dem mu dem sukk nuyu ab sëriñam foofu dañ fee wara seet ba xam ndax niyu gamu niyu ji sëriñ ba lañ ko dàqe wala bàyyi gam bàyyi lam doon def dem lañ ko dàqe ndaxitam itam loi moom du ñëpp ciy dugg di wax ndax attekat bi mën na ate nga weddi li mu atte ngeen toog taabal mu wax la la nga xam ne loola moo tax ma attee nii nga ànd ca bu fekkente ni policier day bu monte garde dem toog ca dam ye ba di dam ye danañ ko dàq su monte garde dem toog ca grand place ba di waxtaan danañ ko dàq su monte garde am as ndawam dem ca wàcc wàcc fa lañ koy liggéeyloo danañ ko dàq su monte garde bàyyi ko fa dem di nuyu jib sëriñam it dañ koy bëgg a àtte ci lu tax nga bàyyi garde bi xam nga lu tax nga bàyyi lii ma la doon te defloo bokkulet lu tax nga defi lii maanaam ñaari tomb dafa am ci loi yoo xam ne nit ñi da ko di xam ku jàngul àtte war nga cee nga cee bañ di gaaw a xuus di coow nit ki daal bu dee nii dafa def njuumte ay kilifaam ne dañ koy yar ca njuumte ga te yarga arrangé wu ko arrangé wu nu nun ñun ñun ñun mu ni ñi nga xam ne suñu mbokkam taalibe la li nu war rek mooy nan ànd baalul ko nan ànd rek ne buur danoo bëgg nga baalal nu papa eh, buuba jàllo mii ngeen bañ kaa dàq ci ci ci ci police gi ndax ak boroomu njaboot la ñu baalu ko noonu rek Eh, yam fi ñu yem foofu rek nañ ko baal man daal li ma bëgg mooy ministre bi yore mbirum police ak mbirum ateeg ka yore mbirum ak këlin idif muy président Macky Sall yéen ñëpp li ñu mën daal ñun mooy ngeen baal Papa Bouba Diallo te Papa Bouba yow it boo montee te garde ak lu mën a xew nanga nga ci sa garde moomu ba mu jeex loolu moo di ak maandute bu fekkente ni bëgg nañoo wax lu jub sëriñ bi nun danoo nekkoon ca suñ tool sëriñ di bay di liggéeyal sëriñ bi sëriñ bi di nu fekk ca tool ba te bu nu fekkee ca tool ba du nu bàyyi liggéey ba dem ni ñu de déedéet loolu moom ku ko fi wax ma ne la loolu nekkul dañuy liggéey ba liggéey ba jeex ñu dem door a nuyu ji ba daana nu nekk ci tool di maanaam eh, mel ni ba ñuy gor bàkko njéeme mën nañoo nekk ca tool ba di gor Sëriñ Seex Mbàkke ñëw fa ñu tegal ko ab pilier mu toog ci garab gu garab gu ak keram fekk nag booba noo sax bëgg a waaye du fa ñëw ci suba ga waaye duñ bàyyi liggéey ba de dañ koy liggéey ba mu yegg ñi doore dem nuyu ko te foofu amul wàndal amul wëlbati amul dara duñ wax mukk ne nan bàyyi liggéey bi dem nuyu ji sëriñ ba lislaam bu nekkee ci en état de guerre julli jot dañu lay wax ne su fekkente ni man ngeen a taxaw ànd julli mbooloo noppi dem ca guerre ba def leen ko su fekkente ni mënu leen ko da ngeen di xaaj ñaari kuréel da ngeen di xaaj ñaari parti benn bi ñëw ci julli gi benn bi des ca ngarde ma bi ñëw ci julli gi dañuy ànd ak ilimaan ji julli genn wàll julli gi ilimaan ji xaar ñu eggale dem bu ñu noppee dem ca palaas ba monte ña desoon dikk ñoom itam ànd ak ilimaan ci genn wàll julli gi ilimaan toog xaar leen ñu eggale seen julli mu taaye sëlmal ñu am julli ñoom ñëpp islaam amul benn benn benn benn benn problème boo dul ni résoudre na ko mën na gànguma sharia wax dëgg yàlla lii mm, lépp sama copte la man xaw ma dara lu may lu may attewaate waaye loolu moom xam naa ne fii ba màkk duñ ko dindi salaatul xawf moom ñun ñëpp ànd nañ ci ne noonu lañ ko defee eh, am na beneen façon sax waaye bii moo gën a yomb léegi nag su fekkente ni dem na ba egg foo xam ne mun lu ñoo bàyyi li ñuy def di dem ca julli ga su boobaa dañuy julli dox mbaa ñu julli war mbaa julli tëdd mbaa ñu julli moytu waaye julli gi moom duñ ko bàyyi waaye loolu nag julli mi yàlla moom ci la ko santaane waaye santaane ko ci leneen ginnaaw julli mi yàlla moom ci la waaye santaane ko ci leneen nañ leen xaw a woyafal tuuti waxtaan ñu bañ fi waxee ne day policier bu montee julli jot warta yor di julli dama fay kaas-kaas yi metti waaye booba yàlla ak xam moo taxoon ma kaas léegi nag ngi dem ci àqi sëriñ bi si fekkente ni àqi sëñ bi daa toll ni àqi yàlla mi bind sëñ bi bind taalibe bi su boobaa danañ mën a taxaw kaas su fekkente ni nag di di ak àqi yàlla jooju di jullil ko moo ëpp doole àqi sëriñ bi bu ñu yéegal sëriñ bi ci maqaamam yàlla nañ ko nañ ko yéegal ci maqaamam guide spirituel sëriñ si pour ngeen noppalu noppal seen taali yi ñu mën a am addiye juñ leen indil da ngeen leen di wax ne ku ci monteeti garde gis ma continuer sa garde lu muy wàññi lan lay wàññi bu wàccee nii si la bu fayee koo indil la addiye moo gën a noppale di ngir dafa ngir dañ ko yefal bu leen bu buñ ko di complication dañ ko yefal policier bu fekkee dafa monter garde nekk ca kaw ngarde ma ñu ne ko demal taxaw fee garde nangam waru faa jóge dem defi lenn lu dul ni heure ba muy garde dafa jeex loolu même bu doon ci lislaam tamit noon la léegi nag ñun ginnaaw nekkuñu ci réewum république islamique ca damaa ngi dégg mu naan mu naan islam ak république déedéet islam mën naa am république waaw mën na ko am ma république islamique dafa war mën a am république laïque dafa mën a am su fekkee ne ñun nekkuñu ci république islamique ci république laïque la ñu ne te république laïque bi doonte Bordeaux lañ ko signé indi ko it saa yuñ koy yeesal ñu signé ne ñun ñëpp ñu ànd wate ne ànd nañ ci. <coughs> sëriñ soosu nga xam ne dañoo bëgg bu ma bu police monte gis leen bàyyi monte ga dem siyaar leen ba noppi del si ca monte ga te xam nañ ne loolu laïcité nanguwu ko lu tax bu ñuy rënd bu ñuy def bu ñuy def bu ñuy def euh, bu ñuy def euh, <coughs> euh, référendum ekkatiwuñ seen kàddu ne d'accorduma ci laïcité te ku ma topp bul ko wate lu tax du ngeen ko def da di noppi ne pat mel ni ñu ci ànd bàyyi nu nu wate laïcité ba noppi laïcité bëgg a dogal ngir ne laïcité doo fi dogale pour ngeen noppalu ñu noppalu gouvernement bi noppalu bu référendum amatee sëriñ si da ngeen di taxaw carrément ne d'accorduñ ci laïcité bi bu ko kenn watee moo gën a noppale waaye bàyyi jaan ba mu romb la dem nga fab sa yet topp ca wet di ko dóor loolu la ñuy bëgg a def ma ne bu fi référendum jotati mukk benn sëriñ noppi bu fekkee ne nag ba da ngeen di bàyyi mu jàll bu fekkee ne bu ñu ne référendum jot na da ngeen di bàyyi laïcité mu jàll bu lay dee ti pratiquer ay loi am na ngeen ko bàyyi mu jàll loolu moo gën a noppale